Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Dafa am benn waay bu ñu wax Samson dafa gudd fan jaamu si suñu borom tabaraka taala junni at day bu muy borom fay ko yiw bi ko ko ci kanam malaaka yeeg yonent yi dañoo yéemu ci ne sam oon am na loo xam bu àllaaxira kenn du ko am te sam oon moomu moom ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam jiitu ko fi fuuf te booba julli juróom wàccagul waaye moom dan nan naafila amoon na alxuraan bi amagul woon waaye amoon ay tawreet ak yeneen yi ñoom ñu bañ demee ba moom moom mu génn àdduna lam defoon benn wal yu dem ba gis ko fa mu nekk gis lam yor ci ci alal jot yàlla instant la defe naa foofu ba mu ko yéemee suñu borom da ko wax ni ko kii ngay yéem de am naa sama benn ndaw boo xam dina ñëw jamono Muhammad lay tudd am nañu ñaari mbir ci seen ci biir religion moom muy ñaar rakkay fajar ak guddeelu xadar maanaam ñaar rakkay fajar su ko yàlla fayee jaam bi ko def yow tey bu la ko yàlla fayee maanaam tuyaaba ji mook junni ati waaja doon yendoo woor di fanaan ni naafila la ko ci yàlla fay boo defee ñaar rakkay fajar moom la yàlla waa lii ku ko xamoon ni ko tar fajar ya buñ koy julli dañ koy yeelu duñ ko biral ñaari rakka yu am doole la dooleem moom kenn rek lañuy fay ci mboolem sunna yi bu la faatee ba julli woo ko jant bi fenk man nga koo fay ba bañi jullee tusubaar foo ko fa jullee baax yonent bi daana wax sallu rakaatay fajri Walau taradatkumul xaylu dee leen julli ñaar rakkay fajar donte da ngeen nekk ca guerre nekk ca armée ba di xeex tamit bu leen ko fàtt Wahana ci benen riwaya ne rak'ata fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha ñar rakay fajar mo gën aduna ak lu ci biram kon nañ ci taxaw diko gor gorlu suñu mam ñi ak mana jangale yi dañ dan wax ne sax ñar rakay fajar ku ko julli wut de ni rek la yalla may mu kay julli wut ko te du dee wane ne foor na rek nak ñu ne picc mo gis mu xey rek fa julli ñar rak'ay fajar xar mo gis mu xey dee wala nak wala te julliwul ko rek dafa dafa dafa koo julliwul moo tax mu dee waaye yooyu yëpp nag nekkul ci tiir yi waaye suñ mag ñi lépp luñ lay jàngal bëgg nga fonk ko dañ koy taqaleeg dee ndax dee moom kenn ñemewut ko moo tax ñuy wax loola rek kon ca julli ya la ñaar rakkaay fajar